tabarakallahu extrait bii may wax Omar boo ko mënee dal nga sof ko ci waxtaan bu Serigne Babacar Sy dama ko amoon yéene te fàtte woon li tax Serigne Babacar Sy dem bu mag ndax léegi nit ñi dañ ko koy jale naan seen Serigne bi demul mag te am na ko am na xaalis wér na am na yóbbal te demul mag wax nañ dëgg Serigne Babacar Sy am na xaalis Serigne Babacar Sy wér na Serigne Babacar Sy demul mag waaye muy waral luy sabab sabab bi moo di Serigne Babacar Sy Serigne Cheikh ko nettali ak Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ma dégg mu ne Serigne Babacar Sy moo ne Serigne Cheikh moo ko laaj Serigne Cheikh moo ko ne papa damay bañ ëllëg am lu ñu dajalee ci diine lu tax demoo màkk te bugguma ëllëg ñu dina jëm ci diine ma fekkee ko te du ma ko mën a diine waaw laaj nga ma loolu ma gis waaye dinaa la ci topp ndax dimbalee la ko ëllëg waaye ñi ñemuñu solo la ñi ñaamuñu solo ñi ñaamuñu solo dafa dama dajale woon sama paasu Màkka ba mu at sëkk ma ñëw tàggu sa maam Alxaaji Maalik Seydi Alxaaji Maalik ne bi ma ñëwee tàggu ko mu ne ma dégg naa la te ñaar mooy kilifa moo ma jot ci wëyul ci dara mooy kilifaam ci tariqa bi mooy kilifaam ci diini ji na ko tàggu nee na ma ñëw ne ko papa dama bëgg a dem màkka ndax dajale naa li ci war yëpp lu ma mu ko ba ba may ñëw yëpp yem na nee na mu ne ma dégg naa la nee na ba ca sa waxuma dara ak màkka jotati ma ñëwaat ci moom aussi dama la waxoon rek laa lay bàyyi la loo xel lu ci wàllu màkk nee na mu dellu ne ko dégg naa la nee na ma ne du ñett ndax gënu ma koo xam sunna gënu ma koo xam farata gënu ma koo xam lenn ñetteelu yoon bi daal moom ma koy wax moo ma naan Babacar jógal leen màkk su ma ko waxoon la boo liggéey bu ma bu ma yàlla taxawalee laaj ma lu tax dem ko woon màkk ma ne ko laaj laaj ko laaj maa nekk waaw loolu ne rek lay sëñ mu ne woon mu ne màkk gi moom dérangé wu ndax bu ko yàlla laajee ëllëg lu tax demoo màkk mu ne dinaa ful la ñu day ko laaj ko laaj maa nekk luñ koy def def moom te Maodo bëggul mu dem toog moo ko war a wut. alaajab bi bii muy dem Màkka xanaa xamoo ne sëñ Babacar Si juróom-ñaari nit la jël tëj leen. ne leen yéen seen nit mooy ndox yi ma leen dox. dee ko def naan ab bu yàlla leen si waat su ngeen ko def bu ñu gis. xam naa cofeelam ci yéen a. <laughs> waaw mu ngi doon sëñ Babacar moo ci wut rakkam mooy ci wut rakkam la jël ñoom ñaari nit la jël fay leen ñaari weeri yàlla bàyyi seen dépense ne leen muy uti dépense fekk suba ak ngoon lii seen nit lii nee leen ko def te wax leen yàlla ne ko Babacar Sy nee ab bu yàlla doon si waat premier ak a ah, yëpp doo nekk ci li ma bu ne ñi dañu wax ne sëñ Si moo yebal Alaaji Mansour Màkka pour mu yem maanaam pour mu dee fa Si wax ñu xaw koo métti nag mais bi Alaaji Mansour ñëwee ba ko ziyaare si ci saal bi ñëpp a ngi fees del di ziyaare Alaaji Mansour di ziyaare wala sëñ Babacar mu Si ne ko si am na lu fi xew sa gannaaw de nit ñi ne leen ñu dama la yebal Màkka pour mu ne ko nit ñi dañoo xamul principe man day waxtu ma akbar ci kaaba yow lay seen yaay jiite. mu ko barab sàngal bañ fa tolloo accident waroon na am yow laa seen nga jëng mu ne ko diiru li ma nekk Makka fu ma teg sama tànk bi seen la ci sama kanam mu ne ko si nit ñi dañoo sopp rek waaye buñ la xamoon ni ma ci la sëñ Babacar si waxee nag ne man leen di dëkk da ngay wattandiku sama rakk yi ku dul man Babacar sama rakk yi la man ku dul man Babacar rek sama rakk yi la man da ngay wattandiku sama rakk yi muy Seydi Hadji Mansour Seydi Hadji Abdoul Aziz Seydi Hadji Habib waaw loolu la yàlla dogal sëñ Babacar si radiallahu anhu xam na charia xam na sunna waaye dafa kilifa man dafa am kii man maa ngi ñëw li màkk gi neex ne bu ma seetlu aussi mu tere woon bi ma ko tàggoo yoonu màkk damay toog waaw ah, mooy sama nga maa ngi la ñëw ba liggéey war a delluwaat te kii kii fa la ndax moo ma ne wul tabaski àll mukk moom ah, kon nit day am kii te sa kilifa lu mu la wax mu neex la ñu def rek sa kilifa boobu na lay ki bonbon rek ak pomme orange boisson bakkan bi di ay ker bu la waxee boo posé sa bakkan bi tuuti moom ma xam daf moom bakkan waaye bu mu foog loo rey te gars yi buñ la meree bi ñu waxati sëriñ bi de marabu rek sëñ Abdallah bi moom koo xam ne leer loolu mu ne gars yi bu ñu la melee doo doo dégg sëriñ bi def maxabu rek ngay dégg rek maxabu utilisant bi daal bu mu ne bu dee sëriñ bi doo du dégg sëriñ bi naana bu wàll mu ne loolu rek lay dégg te ñoom du ko xalaat ne la lool. wa tabarakallahu ahsanul xaaliqin loolu laa bëggoon a sox bi waxtaan moom sëriñ Babacar si donte moom waxtaanam du jeex waaw donte waxtaanam du jeex ñu sox ko ci ba nit ñi xam ko parce que léeg-léeg nga dégg ko wax ci parce que ñàkk ñàkk xam. dinañ war a tënk ko Serigne Babacar Serigne Babacar lu mu am. waaw lu mu am de. li ma fi wax keroog rek waxoon naa ko. ndax nga ko góor gënee si li ma métti rek nit ñi duñ la xam moom. mu ne loolu loolu lay wax la. ki ma bëgg soxla bu duggee bàmmeel dina xam kuy Babacar. ki ma noonu ba def ko noonu bu duggee bàmmeel dina xam kuy Babacar. ndax ñaar ñooñu moom daal dina xam. te ñaar ñooñu rek am nañu. imma shakiran aw imma kafur yàlla na yàlla loolu gis nga man ñii ñëpp yàlla leen baax yàlla xam na ko waaw barki démb dafa am ku ma woo ci France bi ma ñibbisee Nice la nekk mu ne Omar yaakaar nañ jot nañ. waaw waaw waaw kay Omar nii la ñuy jot wala technicien bi Abdou Aziz ñoo leen di jox sama numéro waaye jooy na lu man ne ma boo bëggee léegi man bu jaay dagaloon ma jaay sama njaboot yëpp jox la ndax li ngay liggéeyal diine ndax wax ma yu gaaw yoo xam ne sax ñu ne woo ko te moom xam naa ne moom it du nit kese ak boo ma tëdd lu ko sidu di ko wax ni ñibbi si na ndax man bu may tukki dama koy tàggu bu may ñëw dama koy tàggu na ko yegg si na boo ko ne mu ne ma xut bii daal di xàqataay ma ne ko amiin mu ne ma amal ah, daal yaa ngi sama xut yal nañu yàlla doon si waxuma ne ko laa damay nettali rek ay fee tabaarakallaahu léegi tey gars yi ñu ne ah saa waay am na màggal bu bees ah waaye amiin bu ko amee ci jël kenn terewu ko président rek bu bëri yéen ñoom nekk président de la république ah, boo sañ naa sant wala de yàlla yàlla doon sutura moo tax nag ñun ñëpp ñu war a bàyyi xelal bàyyi xel léegi jumaa ji ma jullee fële maris